أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñépp boole seen ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan ak yéen tey mi ngi jëm ci fadailul quraan ngëneel yi nga xam ni ñoom la yàlla rànge téeréem bu tedd bi mu di alquraan rawaate na ci weer wi nga xamante ni sañ nga wax ni mooy weeru anniversaire wàcc alquraan chehru ramadan allazi unzila fihi alquraan ci weeru koor la yàlla wàcc alquraan ñu àndandoo seet ni ko yàlla defee ngëneelam ci kaw mboole seen téere yu mës a wàcce dikk na ci xadis boo xam ni imaamu buxaari moo ko soloo jële ko ci abi hurayrata radiallahu anhu wax ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam maa min al anbiyaai nabiyun illa uctiya ma mithlahu amana alayhi bashar wa innama kaana alladi utiitu waxyan awxaahu llahu ilaya fa arju an akuna aktharuhum taabian yowma alqiyaamati mu ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yonent bu yàlla mësu yónni ci ñi jiitu woon alayhim salaam yàlla jox na ko loo xam ni ci màndarga ci mucjiza ci miracle looloo tax ñaka topp topp ko nee na moom nag sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla jox daf ko ko wax yu mooy alquran mooy miracle bi nga xamante ni mooy miracle éternel mujiza alxaalida ba ila yawmi diin nee na moo tax sallallahu alayhi wa sallam bëgg na bisu pencuma mu ëpp ñépp ñi koy topp yonent bu yàlla ma si yónni am nañu ko topp ci kaw am benn dalil bu yàlla feeñal seen kanam ñu jommi xam ne li ëpp na nit moom nag ñi mu jonkonteel mushrikuuna yi di bokkaale dañu doon wax naan alquran ji dañ ko fent xam naa ni giiru arab dañu mën poésie mën aruut mën bayaan am fasaxa mën lakk ñoom ñoo ko inventé alquran ji yàlla nag fa seen jàkkaarloog ñoom di renforcer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour war leen alquran ji ëpp na lu nit di créer ci yàlla la jóge subhanahu wa taala li nga xam ni dañoo jëlee ci xadis bi dalil yonent yi alayhimu salaam ñi jiitu woon ñëpp ku ne indi miracle am jële yonent yàlla Moussa alayhi salaam wa ma tilka bi yam ñi ni ko yaa Moussa la ko yàlla wax lan nga tey sa loxo ndey joor mu ko hiya asaaya atawakkaw alayha wa axushu biha ala anami sama yat la ci lay sukkandiku ci lay sàmm gétt gi yàlla ñu ko tekk ci suuf mu tekk ci suuf fa ida hiya xayatun tasaa mu nekk jaan buy dox yàlla ni ko xuzha wala taxaf jartite bu tiit sanuiduha sirataha al ula danañ ko delloo mel na naw meloon kon yat boo téyee sànni mu nekk jaan nekkaat yat ku fa nekkoon keroog jommi nga ni kii kat fekkoon te du njabarkat du xërëmkat lii ëpp na nit yontu yàlla saalix alayhi salaam ba muy woote xeet bi ni ko indil miracle lu lu lu ñu yéem yàlla jox ndigal montagne bi benn xeeru montagne wadd xeer boobu xam lu ci génn gëléem bu jigéen di wër loolu su amee ñëpp daañu ni yi kat ëpp na ni dañoo nangu ashhadu an la ilaha illa allah mais xam nga lu xew gannaaw yonent yooyu alayhimu salaam mag ña fa desoon ñooy nettali ah bisu saalix ba keroog lii moo xewoon nii la meloon nii la meloon mais kenn bindu ko mag ñooñu suñu jeexee histoire ba jeex na tey jii munu am ci àdduna bi fenn fu ñu la wan texte original ñu ne lii mooy tawraat lii mooy injil waa bi mooy zabuur ndax gannaaw gi dugal nañ ci ay yokk ak ay wàññi ak ay rax ba kenn amatul texte original bi alquran bi nga xamante ne tey quatorze siècle fukki siècle ak ñeent tey alquran yi tabarakallahu te ba ilaa yawmi din nii lay mel kenn yokku ci kenn wàññiwu ci soo ko doon jàng sax soo dugaloon baatu arab bu ci bokkul mu feeñ ci saasi ndax alquran leer la waxu yàlla lii dafay dolli imaan dafay dolli tawxid borom bi nag di ko yaxal ci ay bërëb yu bare mu ñu tabaraka alladi nazala alfurqaana ala abdihi li yakuna lil alamina nadira nee na màgg na kawe na ay yiwam bare na buur bi nga xamante ni moo wàcce alfurqaan muy teggale diggante teqale dëgg ak caaxaan yoonu leer ak yoon wu lëndëm yoon wu ñu war a jaar ak yoonu ñal wàcce ga ci jaamam ngir mu doon tabaarakallahu ab xuppe ab jajje ci mboole seen adduna bi doomu aadama yépp wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin mooy message universel pour ñépp nag ñi nangu ñi nanguwul ak ñi nangoogul doomu aadama yépp alxuraan dafa wàcc si ñoom sama bam teg ci ni qul inna ijtamaat al insu wal jinnu ala an yaatuu bi mithli hadha alquran la yaatuuna bi mithlihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira ne wax leen ni leen yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam su nit ak jinne dajaloo woon pour indi alquran ju mel nii duñu ko mën mukk dem suñu demoon di woote ji woote seen ay borom xam-xam seen ay kàngam ñu gën a foor ñu ne kay dañu def réunion def alxuraan bu mel ne alxuraan yàlla bi mënuñu ko wane nañ loolu mi ngi wane ni du yëfu nit dépassé na entendement doomu aadama teewul gaa ñi dàgg sa defate naan eh dañ ñoo nax rek dañ ñu ëpp xel rek dañ ñu gën dégg arab rek mais lii waxu nit la yàlla ñi leen am yaquluuna iftaraah qul faatu bi ashari suwarin muftariyat wad'u man istata'tum min duni allahi in kuntum saadiqin ndem yéen a ngi déng-déng ba tey waa léegi waxuma alquran ci boppam wante fukki saaru alquran dajaloo leen seen biir ngeen woo ku leen neex seen i boroom xam-xam ngeen def ay colloque ay congrès pour defar fukki saaru alquran ngeen indi ñu ndem ndem li ngeen woote dëgg la gaa ñi dem dellu si mënuñu ko yàlla ñëwaat janoog ñoom ni am yaqulu naftaraah qul faatu bi surati mislihi wad'u man istata'tum min duni allahi in kuntum sadiqin ba tey yéen ji dégg-dégg waa léegi waxuma fukki saar jéggi naa alxuraan léegi jéggi naa fukki saar benn saar laa wax inna atenaaka alkawsara mbaa li ilaa fi quraychin mbaa qul wallahu ahadun mbaa wala asri benn saar alxuraan laa wax ngeen indil ma ko woo leen seen ay kàngam woo leen seen ay borom xam-xam ngeen dajaloo ngeen indi benn saaru alquran mënuñu ko gaa yi dem dellu siwaat mënuñu dara sama borom jaroon ñoom nag ñi day xam boppam wolof nee na ku déggul buur saay na day naa na buur dee na yemul ci dee na biir ba fàcc na ñaa nga ne gasal ko di ko suur kàmbam loolu yàlla waxante ak ñoom mun wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina faatu bi surati mislihi wad'u shuhadaakum min duni allahi in kuntum saadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu nnaar allati waquduha annaas walxijaara uiddat lilkafirin wax ji jeex na sama borom ne su ngeen nekkee di déng-déngi ci lii ma wàcce sama jaam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen di déng-déngi ba tey indi leen ma benn saaru alquran bu ko nuru woo leen seen ay kàngam woo leen seen ay borom xam-xam ngeen seen ndax mën ngeen ko wante fa illam tafaalu su ngeen ko mënulee kooku nag kilifaay wax teg ci wallan tafaalu te du ngeen ko mën mukk nag déggal ñaari wax yi fa illam su ngeen ko mënulee wallan négation du ngeen ko mën mukk nag kon kii waxante ñoom xam na ni maa leen bind maa leen sakk seen ay pexe am na am na limite fu mun yem su ngeen ko mënul du ngeen ko mën mukk nag fattaqu naaral la tii na ngeen tiit safara si nga xamante ni matt ya koy xambe i nit la ñuy doon ak xërëm yu ñu daan jaamu kon mooy su ngeen ko nanguwulee nag yéen ci seen bopp lay jël def leen ay matt di leen taal pour lakk seen ay xërëm kooku kullu kuy julit war na santaat yàlla ci mu def la nga dekk doomu aadama judd doon doomu lislaam loolu chance bu rëy la mbokk yi ku ci nekk na ko sant yàlla sant ko ay waajuram judd nekk jullit yan na fekk gas yi sax dund ci lislaam dee ci lislaam dekki ànd ak tabarakallah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci mbooloowam sama borom nag clôture dossier bi ni wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan laa mubaddila li kalimatihi wa huwa samiu alim waxu yàllaa ngi di nag mat na sëkk nag jeex na tàkk jub na xocc dootul changé te ba ilaa yawmi diin benn baat du si yokkooti benn baat du si dindekooti kooku mooy miracle alquran quatorze siècle li fi jaar ci borom xam-xam li fi jaar ci ay weddikat li fi jaar ci ay scientifique ku nekk jéem na pexeem tabaarakallaahu yàlla nee na benn baat dootu ci soppeekooti benn baat dootu ci wàññeekooti benn baat dootu ci dellekooti daf ko verrouillé alquraanu karim ne mi ngi dégg lépp nag te xam lépp kirén yi sama liggéey ngi nii te maa ngi dégg lépp te xam lépp moo di mi ngay veillé ci téeram boobu subhanahu wa taala kon ñun lan moo ñu ci war mooy gëm ko ormal ko téere boobu yàlla ni ci alquran laa yamassuhu illa almutahharuun yow soo amulee njàpp mbaa amuloo tiim mbaa setuloo bu lal téere bi kooku day day du miracle amul téere bu adduna yëpp bu la jot da ngaa jël te téye sa loxo teg fu la neex ak si étagères yi yàlla nee nay sama téere bi soo jàppule jàpp gu sell soo àndeek sobe bul ko laal soo amee ngant ba war tiim nag na nga tiim soogaa jël sama téere bi laa yamassuhu illa almutahharuun téere boobu nag limaamu tirmisi solo na xadis bu tedd jële ci kuñ naan alxaaris ila arwar awar saaba bi nee na dafa nekk si jàkk ji fekk saxaaba yi def ay géew di werante ci aaye yi wér naag wérul nii la mel ak taalibe rek taalibe yi taalibe yi foo ne fekk ñoo ngi discuter nee na mu romb leen gis coow li bare lool mu dem ci aliyun karamallahu wajhahu seydina aliyun ni ko sëriñ bi fekk naa gaa yi sa jàkka ja de ñoo ngi xuus ci téere yi ci xadiis yi di werante de aliyun dën nag dafa fàttali lu bare lu sore sore sore mun ko loolu am na mun ko ña nga cee werante de mun ko lii de fàttali na ma wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan la sallallahu alayhi wa sallam wax mu ni ko innaha satakuna fitna sama gannaaw fitna dana feeñ keroo Alioune taxawaayam boobu daf ko delloo ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni woon na bés fitna dana ñëw sama gannaaw mu ne su fitna amee famal maxraj ya rasulallah su fitna feeñee sama gannaaw nan la ñuy jaar def ba mucc ci fitna yooyu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su fitna feeñee sama gannaaw na ngeen jafandu ci alquran adduna yu yëpp tey jaaxle adduna bi yëpp ñàkk topp alquran kott la adduna bi yëpp jaxasoo crise mondiale crise économique crise sociale crise des valeurs crise morale yëpp boole seen injustice ñàkk maandu ñàkk jub ñàkk wëlbatiku ci alxuraan ndax fitna lii fitna la crise mooy fitna rek adduna bu adduna bu réer nit ñi jaxasoo xamatuñu fu ñoo teg seen tànk buur yi réer nit ñi jeng jubatuñu tooñ ak toñar bi yàq foo mu gën a ñaawe tabaarakallahu sallallahu alayhi wasallam ni woon na sama gannaaw su ngeen jaaxlee ngeen jafandu ci alquran ngeen dellu ci alquran ëmb na xabaar yi jiitu woon démb mooy jurisprudence lépp lu war xaw am tey jii soo référé woo ci alquran nit lii ba mu xewal sallallahu alayhi wasallam yàlla ni woon na nangam ak nangam ak nangam jurisprudence rek nga ne ah alxuraan li la wax nañ ko def ëmb na lool xabaaru démb ëmb na xabaaru tey sunu diggante ak lii ñëw ëllëg insha allahu taala mu ni mooy waxu yàlla du caaxaan képp ku fi bàyyi waxu yàlla ngir pànk yàlla dina la damm képp kuy sàkku beneen yoonu njub bàyyi fi alquran sànku nga àdduna sànku nga alaxira mooy buumu yàlla bu jub ju xocc mooy fàttaliku yàlla moo di siraatal mustaqim ku ko téye tegu nga ci siraatal mustaqim mooy li nga xam ni jamono du yàgg ba mu xewwi alquran du xewwi làmmiñ yi duñu tayyi ci di ko jàng chaque jour nga jàng ko mel nga tey nga koy soog a dal alquran boroom xam-xam yi duñu ko suur duñu ko doyal bés bu nekk benn baat bi qaala allahu qaala allahu yàlla nee na yàlla nee na benn bés bu nekk boroom xam-xam bi ak koy répété waat téere bi soo ko téyee loo ko tijji tijji du xewi du late du la mës a soof bés bu nekk tey alquran ak orma jàng saar bi nga jàngoon démb mi gënaat am cawarte jàng alquran mu ni ay kéemaanam du dog du doggi alquran bés bu nekk miracle la scientifique yi ñee def ay recherche bés bu nekk ñu découvrir lu bees fekk loolu alquran indiwoon na ko si yàgg na lool ñoom ñu koy soogay xam yow doomu aadama yi bés bu nekk nga jànkonteel situation alxuraan gindi la dëfal la leeral sa bët leeral sa yoon teg la ci tabaraka orientation ni mooy la nga xam ni jinne yi jinne dafa mën a werante jinne dafa mën dàgg sante jinne dafa mën gaaw weddi ba ko jinne yi déggee ak li ñu mën a werante ak dàgg sante yépp dañu ni na jommi nañu nag jinne bu jommi inna sami'na qur'anan ajaban ñun dégg nañu alquran ju yéeme yéedi ila rusli dafay ommate ci yoonu njub fa aman naa ñun jinne yi gëm nañu jinne yi kon alquran moo leen jommal ñoom jinne ba ñu jommi nangul alquran waaw ali ni ko nag radiallahu anhu man qaala bihi sadaqa képp koo xam ne yaa ngi wax te sa waxtaan ci alquran la sukkandiku dëgg nga wax koo mënti digaaleel ngeen di waxtaan wala ngeen di werante seen werante daal soo tegee alquran wax ja jeex na waaw wa man amila bihi ujira mu ni képp kuy jëfe alquran daa doon ku yàlla di yool di la doole ay tuyaaba di la doole ay xasanaat wa man xakama bihi adala képp ku ñu teg nga war atte atte ci benn situation benn procès ay doomu aadama nee na nga attewoo ci alquran nee na jubal nga maandu nga wa man daa ilayhi hudiya ila siraatil mustaqim wante képp kuy woote te la ngay woote yépp nga tekk ci yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alquran nee na nee na yaa ngi woote ci siraatil mustaqim aliyu ni saxaaba bi xuz ilayha yaa awar jàppal ci lii soo si jàppee rek daa xam ni tegu nga ci yoon kon mbokk yi fa tabaarakallahu ñu ubbi bunt yoo xamante ni fan yi la yépp danañu duggaat ci téere yàlla bi wane ngëneelam ci kaw mboole seen téere yi mu yokk ñu pas-pas yokk ñu gën a fonk téere bi ku jàngoon nga dolli di nafar la nga jàngoon ku jàngul woon nga dem wuti ku la jàngal ngi tabarakallah ngir nga gën a xam message yàlla bi te di ko jëfe yal nañu yàlla xiir ci boppam allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuuman wala tajcal fiina wala macana shaqiyan ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى أعوذ وبركاته بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen ànd ak di leen ziyaara di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem ñoo ngi nekkoon ak yéen ci fadailul quraan ngëneel yi nga xam ni ñoom la yàlla rànge téereem bu tedd bi tekk ci kaw mboole seen téere yi tekk it ci kaw mboole seen kaddu ak kalaama yi ñu nekkaat ci bunt boobu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam fadlu alqur'ani ala saa'iri alkalaam ka fadli llahi ala xalqihi rawahu tirmisi limaamu tirmisi moo ko soloo jële ci abi hurayrata radiallahu anhu wax ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ngëneelu alquran ci kaw mboole seen wax yi ci kaw mboole seen kalaama yi ne mi ngi mel na ngëneelu yàlla ak bindeef yi yàlla yàlla la tudd jaam yi jaam lañu tudd amul lu ñoo dendale ne noonu la alquran mel par rapport ak tabaarakallaahu yeneen kalaama yi mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam faman waqara alquran faqad waqara allah waman lam yuwaqir alquran faqad istaxafa bi xurmati llah ba tey tirmisi yi moo ko soloo nu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni ormaal nga alquran ormaal nga yàlla jaamu yàlla rek mooy ormaal yàlla mooy bàyyi xel yàlla mooy gëm ko mooy wéetal ko mooy màggal ko delloo ko cëram yépp bañ ko bokkaale nee na soo ormaalee alquran rek mi ngi symboliser ni ormaal nga yàlla subhanahu wa taala wante soo ñàkkalee orma alquran ah wane nga sa ñàkk teggin ci xadara yàlla subhanahu wa taala ku jël alquran waroon ko jàng jàngaloo ko waroon ko teg ci kaw boole seen téere yi nga teg ci suuf jël alquran dëggaate ko mbaa xotti kayitam yooyu mooy ñàkke teggin yàlla subhanahu wa taala alquran soo ko mënulee sax tekk fu kawe kawe kawe te bañ fexe it ba du poussière bañ ko yemale ak yeneen livres yi soo amee ay livre arabe wala ay livre français ay dictionnaire teg leen nee teg alquran nee wala alquran teg fi féete leen kaw léegi nga nekk ci kër ñee liggéey di fomp ak nettoyer xamewuñu alquran xamewuñu beneen téere dañoo dajale yëpp rek teg la hawla wala quwwata illa billah yow borom kër gi war nga di romb di contrôler soo gisee alquran nga woole neen eh xame leen téere bii ndax nga jël ko teg ko ci place ëllëg it ñu defaat la même chose da nga leen di woo bu ñu ñëw nga ne ko kaay lii mooy alquran mooy téere yàlla bi bu ko yemale ak téere yi si des foo ko gisatee fompal teg ko ci kaw a kaw a kaw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ormal alquran an yataallamuuhu wa yuallimuuhu ala dawaam fi mujtamaihim bokk na ci ormal alquran noosoo ak di ko jàng ak di ko jàngale alquran mooy téere bi nga xamante ni du sàppi du late du lamb du xewi mën nga jàng école ba université benn ouvrage boo jàng benn at di ak ci xam naa ko kii passé na ki féete na boor amatuma ci soxla mais alquran ba ngay ndaw ba bala ngay màggat bi jaaw di wujj sa borom da nga ko taxaw di ko jàng du late du lamb du xewi du sàppi du soof loolu yàlla dogal tabarakallahu kon soo ko dee ormal war ngay nafar di nafaraat te loo si ma nit fexe ba mun loo ko ñeneen di ko jàng ak di ko jàngale ci mbooloo yi yajibu ala almuslim alladi la yuxsinu fi qiraati alquran an la yastaxyi min taallumihi maa kabiri sinnihi walaw bi ujrati nit jullit warul am kersa si jàngi alquran soo ko mënulee dem ba mag xam ni ferloo ijj am na saar yu la manqué bul am kersa bu ni sama sikkim dafa weex léegi mag laa daara ja ay xale la fa nekk bokk duma bokk ma ak ñoom génération duma fa dem bul am rëy ci jàng alquran bul am rëy ci wut ku la jàngal alquran demal ca daara ja soo ko mënee di fay am ku la jàngal soo mënul dem ca daara ja ndax da nga magee wala tànk yi mayu la ko wool sa kër ku yàlla suturaal mu lay suturaal nga di ko teral yooyu it bokk na ci ormal alquran bokk na ci ormal alquran yebal njaboot gi soo amee ay doom yu ndaw ñu dem jàngi sa daara ja di bàggante jóge sa kër dem ca daara ja muy seen tarbiyatu nafs ñu yar seen bakkan toroxlu tabarakallahu ngir fa ormal téere yàlla bi waaw bokk na it ci ormal alquran kullu kuy jullit war nga fexe ba am sa kaamil alquran téye ko ni yaa ko moom kii mooy téere yàlla bi doonte munloo jàng doonte ferloo ijji doonte mokkaloo téere bi ni wante lii mooy téere yàlla bi jullit war na ko am ci biir néegam ñeneen ñi bokkul ak ñun diine koo si gis mi ngi yore seen téere jàngu bi ci cartable mbaa si poosam ñun nag alquran ci ñu bare bare bare bala nga koy jàng rek mooy dëja am sarax si ñetti fan yi ñeent fukki guddi yi wala nga am jommite soxla nga di xaaral ma jàng alquran kon kullu kuy julit bokk na ci xormaal ko nga dem jëndi sa téere alquran am ko sa biir kër mbaa sa poche mbaa sa cartable bokk na ci xormaal alquran tamit soo mënulee jàng te yàlla may la wërsëg jëndal téere yu bare jëndal téere alquran yu bare dem ca daara ja xale yi amul téere bare nañu nga ni sëriñ bi kii kat maa ko def ci daara ji mbaa ci jàkka ja ñee ñëw di jàng alxuraan bare nañu nga indi sa kaamil alxuraan def sa jàkka ja ku ñëw tabarakallah jàng si di nga ci am tuyaaba ni ki noonu bokk na ci ormal alxuraan léeg-léeg amuloo dëj amuloo soxla amuloo aajo bu jamp bu taxaw nga dajale sa kër mbooloo jullit yi ñu jàng alxuraan nga teral leen ngir rek màggal alxuraan téere yàlla bi xam nga loolu tamit bokkul nga am soxla amul benn intérêt mooy lii kat tey sama pas-pas mooy wuyu dama gëm yàlla gëm alquran bëgg nitu alquran yi tey daal dama organiser benn yendu benn ngoon benn takkusaan wala benn añ ñu ñëw jàng alquran jàng kaamir bi nga bég si nga teeral leen ñu dem loolu it bokk na ci màggal alquran bokk na it ci màggal alquran bañ laal kaamir bi téere bi te ànduloog làpp fekkee da nga war jàpp nga jàpp soo waree tiim nga tiim laa yamassuhu illa almutahharun yàlla nee na bu ko kenn laal lu dul ñi way laab yi kon xale yi nañu xàmme téere yàlla bi bañ ko yemale ak lenn ci beneen téere téere arab bu mën tey téere arab kese la mais alquran waxu yàlla la waxu yàlla na ci kaw rek la war a féete bokk na it ci ormal alquran tabaarakallahu su la si yàlla mayee nga mën ay saar nga di ko nafar alquran ngi gaaw rëcc na alquran ngi gaaw rëcc yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam taahadu hada alquran fa wallazi nafsu muhammad bi yadihi lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fi uqliha buxaari ak muslim ñoo ko solo nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam na ngeen noosoo di nafar téere yàlla bi ngeen nafar alquran ne giñ naa ci màggu yàlla moo gën a gaaw rëcc gëléem bu ñu takk nga takk sa gëléem ak buum gu rëy muy feqatu ba jóg rëcc alquran bu ñu jàngul moo gën gaaw rëcc loolu ak a bare i ndaw ba ñoo ndaw nekkoon ca daara jàngoon nañu alquran dem ba mag yëpp rees parce que mooy nafaruloo révisé wuloo alquran loo ci mën bés bu yàlla sakk fexeel ba lu mu gàtt gàtt ñaari ijib nga jàng ñaari xisib nga jàng ko ci loolu au moins dana am lu mu téye mais soo ko nafarulee dem ba mag naan man jàngoon naa monti man mokkaloon naa monti man wàccoon naa mënu naa tëri nisful quran la hawla wala quwwata loolu gàcce la dem ba mag nag doo ko mën dabooti ba mukk kon na ngeen di nafar téere yàlla bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wallazi yaqra'u alquran wa yutaatiu fiihi wa huwa alayhi shaaqun lahu ajraani nee na ki nga xam ni dafay jàng alquran di nakk-nakki di jàpp a bi asmi ilahi ara ahmani mu metti loolu nga di taqale di dem di dellu si ba mu jàll ne daa am ñaari tuyaaba tuyaaba wu jàng alquran ak itteewu mën ko pour mën ko jàng-jàng bu rafet daa am ñaari tuyaaba wallazi yaqra'u alquran wa huwa maahirun bihi maa safarati alkiraami albararati nee na ñi nga xam ne nag yàlla may na leen ñu mën ko jàngi jàngin bu rafet tabarakallahu nee na ñoo malaaka yi ko doon wàccee ak jibril alayhi salaam ñooy bokk nekk bis penc ba yàlla bu ñu loolu ump waaw bokk na ci ormal alquran su la ko yàlla mën loowee ay saar nga di ko nafar wante wàcce kaamil bi dale ka baqara ba suratu naas nga di ko jàng su jeexee tam xadmul quran nga tàmbalewaat yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam أفضل الناس الحال المرتحل قيل من هو يا, يا رسول الله قال صاحب القرآن كلما حل ارتحل أي كلما أتم خدمة استأنف أخرى نين جن جنت موي كيغا خامتاني دا فاي واتش رك دم نكو يا رسول الله كان موي واتش دم مون كيغا خامتاني دا فاي جان القران بقره بسوره الناس جان خدم القران تامبالي وات si nga loolu nit ku nekk mën nga wut ku wàcceel kaamir mais soo feree ijj defal sa objectif bul ko yàkkamti ubbi suratul baqara bés bu nekk nga jàng ñaari xisib di ko topp insha allahu sos defee itte bala weer di jeex mbaa ñaari weer daaka matal jàng xadmul quran nga am sa fierté ni man kat wàcc naa wàcc jàng naa téeru yàlla bi loolu soo ko dee def avec le temps dafay dem ba nekk sa habitude bari dina gën a leer daa gën mokkal saar yi daa gën xàmme saar yi daa gën xàmme xaraf yi te daa si am yoolu kuy jaamu yàlla ak di ormal alquran yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam alquran mooy sunu garabu xol moo ñuy faj inna alquluba tasdaw kama yastaw alxadid nee na xol dafay xomaat xol doomu aadama ni weñ di xomaate su weñ xomaatee nga def anti ruy xol su xomaatee foo koy faje mu ni soxol su xamaatee noo koy faje tilaawatul quran jàng alquran ak zikrul mawt fàttaliku dee yi leen ñaan rek mooy tax soxol nekkat à niveau gis nga soo amee njàqare li naan am lu kafaar yeewu sa xol neexul sa xol diis sa yaram soof doo sawar dara demal nga jàng alquran demal jàppi jàng suratu yaasin xalbul quran bala ngay pare saar bi sa yaram fireeku alquran mooy sunu garab soo amee lu la naqadi am lu la tiis sa xol diis demal ca armeel ya demal sa armeel ya seeti bàmmeel yi nga xamante ne xam nga leen sa ay mbokk lañu sa ay waajur lañu ay jegeñaa lañu boroom xam-xam yi nga ziyaar leen ñaanal leen xalaat leen xoolal kii nekkoon ci kaw suuf amoon njariñ amoon itte amoon taxawaay amoon xam-xam amoon baraka tey mi ngi nii ci pàkk bu tuuti bii nga xalaat loolu ni ëllëgi si biir mën naa ko fekki sooy ñibbi sa kër da ngay dellu ak xol bu naat xol bu féex yii de mooy yi nga xamante ni mooy faje sunu xol yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna alqalba alladi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayti alxaribi nee na xol boo xamante ni dara ci alquran nekku ca mi ngi mel na kër gu màbb kër gu màbb kër gu daanu kër gu bal jaar ay bomb jaar xool jullit fa ngay juddoo nekk ndaw ñu toqental la alquran tëfli la léemu la tabaarakallaahu sa waju di wuti ay gàllaaj ay saafara di la ko sange alquran la nga màgg ñóbbu la nga dari alquran ñu bindee la iqara jàngal bindee la ko si mburu nga lekk pour ubbi sa xel tabaarakallaahu nga màgg am ay saar xëy suba teg alquran fële jàngi way jàngi fecc jàngi bëre jàngi dugg lu sa yoon nekkul ak toppatoo yoo xamante ne amuloo njariñ fii amuloo njariñ fee ku la laaj benn saar nga wokk sa bopp la hawla wala quwwata illa billah gàcc lu gën gaaw garaaw li nee na kooku xolam mi ngi mel na kër gu màbb bokk na ci màggal alquran yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa yuazibu llahu qalban askanahu alquran nee na yàlla du mbugal xol boo xamante ne alquran dëkki na ko abu zar daf ko laaj ni ko yaa rasulallah man dama tiit ragal jàng alquran te du ma ko jëfe mun ko abu zar yàlla du mbugal xolu koo xam ne alquran a ngi ci dënnam kon garanti la garanti boobu war na tax même fekkee yaa ngi góorgóorlu jëfee goo ko à 100 pour cent mais na nga ko taataan sa dënn soo julli nga jàng alquran soo sërmëree jàng alquran digte yi sa téere di ko jàng di wan sa njaboot exemple na leen nii ngeen war doxale ëllëg mën nga toog ci kër way jur boo xamee toog télévision film suba film ngoon match football suba match ngoon grand place attaaya waxtaan heure yooyu yëpp soo si jëloon benn 30 minutes consacré ko alquran wallahi ren déwén déwén déwén géej daa ci am lu bare bare bare bokku na ci ormal ko yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man allama alquran wa taallama nee na ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran te di ko jàngale ku xas ba jàng waratoo noppi ku xas ba jàng waratoo noppi ku xas ba mën waratoo noppi denn ngaa ko xamante ne ala kulli xaal mu di sa soxna wala sa njaboot wala sa dëkkandoo wala sa benn mbokk daa ko mën laay wir si la nga xam moo tax mu ne ki gën ci yéen moo di ki jàng te di jàngale ku xas ba mën lenn ci alquran waratuloo noppi déedéet ngaa koo xamante war nga ko mën a laawe biir ca la nga mën yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu ñooñu alquran daal ci gàttal ñooy ñitu yàlla yi ñooy góor yàlla yi ñooy borom jagle yàlla yi subhanahu wa taala mu ni man utiya alquran fa raa anna ahadan utiya xayran minhu faqad xaqara ma azamahu allah wa azama xaqarahu llah képp ku yàlla yekkeewal nga mën lenn ci alquran wala nga mën alquran léppam te di ko jëfe di ko jëfe nga wëlbatiku gis keneen amee daraja mbaa teraanga mbaa ñamu àdduna la mu am nga xemeem ko xeeb la nga am nee na yaa ngi wàcce lu yàlla màggal di yéege lu yàlla xeeb mooy àdduna ak poñete àdduna kon ku yàlla jox alquran tabarakallah nga di ko jëfe amatu lu tiimati waratoo ñee kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaar a jarañ ñee ci kaw suuf ñaar ñoo jarañ ñee ku yàlla jox alquran jox la xam-xam jox la xikma nga taxaw di ko jàngale guddeeg bëccëg ku ne war na ni man ne waroon naa mel na kii su ma xamoon li mu xam may def li muy def ak kan ku yàlla jox wërsëg alal ju bare nga seet def ci sabilillahi di dépenser ngir yàlla amoo ci ngistal kenn du la dégg ci dara tabax jàkka yi tabax daara yi dem hôpital seet malade yi fayal leen seen ay ordonnance dimbali miskin yi dimbali njirim yi te yàlla tax nee na ñii ñaari ñoor a jaara ñe nga toog naan man su ma amoon ay milliards naa def na kii lu may def dañ laa bindal tuyaaba na kooku la mu doon def fa tabarakallahu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam bokk na it ci ormal alquran ormaan ñi nekk ci service su alquran te bokk na ci xale yee de bàggante daara ji xale yooyu innocent lañu xamuñu dara comme ay malaaka xale yooyu xëy jàngi bind alluwa tëri alluwa ñooñu kot tabarakallahu ñooy ñoo ñi ngi service alquran yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam al aalim wal mutaallim sharikaani fi l ajri wala xayra fi saa'iri nnaas nee na kii jàng xale bi jàngi ak sëriñ bi koy jàngal ñoo bokk tuyaaba ji ndax sëriñ bi su fekkoon amul ku mu jàngal du jàngale donc preuve jàngaleen ak tuyaaba jàngaleen mooy mu gis taalibe bi kon yow taalibe bi dem di jàngi ak sëriñ bi lay jàngal ñii ñaar ñoo bokk benn tuyaaba ci moo tax ku nekk war am motivation sëriñ bi war sawar bañ xeeb la muy def xale bi it war sawar ndax la ko ca nekkal ci ay tuyaaba yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man allama ayatan fi kitaabillah kaana lahu ajruha ma tuliyat képp koo xamante ni jàngale nga benn aaya ci téere yàlla bi daañu la bindal tuyaaba feeg ñoo ngi jàng aaya boobu kan ko jàngal saa yu ko jàngee ñu bindal la tuyaaba xool loolu na mu toll sëriñu daara sëriñu alquran kenn mënu ko fay yàlla moo am fayam ñaata xaleel ñoo jaar ci sa loxo ku ne nga jàngal ko bis bis bis rahman rahim fatiha lixlaas naxte na ak alquran yépp ñooñu fu ñu ko jàng si julli mbaa ci nafar sëriñ bi am pourcentage am kooku kenn xam naka toll ci alaxira fa tabaraka allahu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ida qaala almuallim lisabiyi qul بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه من النار وبراءة للمعلم خلي بجانجنا القرآن سين بتي ألوام بندل كوتش بسم الله الرحمن الرحيم مربتي نين يالا دكرتي ني خلي بي يرمم أرام نصفر سرين بي يرمم أرام نصفر ñaari wayjur yi ko jël yóbbu ko mu jàngi seen yaram aram na safara kon lii wane na motivation pour kenn ku nekk jël sa njaboot yóbbu mu jàngi sëriñ bay tamit def ci itteem jàngale kanuy jàngalit def itteem taataan xam-xam ñoom ñett ñëpp insha allahu taala seen yaram aram na safara ñoo ngi koy yemale fii yal nañu yàlla may dégg ak topp اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari rakaa rakka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bakkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal leelatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu